dans une an waaw sunu tàkk day moo doon euh, li si jiitu ñëw euh, siyaare si sëñ euh, Muntaxa xalif général des Mourides ñëw it waxtaan ak moom ci wàllu économie ci problème yi nga xam ñu ngi koy jànkonteel ci réew mi loolu daal boo doon tànk yi gis nañ ko ne euh, waxtaan nañoo moom bu baax wax nañ ko lii nga xam ne mooy sunu njàmbat wax nañ ko lii nga xam ne it mooy sunu tiitaange ci wàllu économie ci réew mi ndax dañu gis ni am na société bu mag boo xam ne bii nee nañu mooy deuxième wala troisième société ci France di def wàllu commerce ñëw ci réew mi installé te réew yi nga xam ne jaar na fa yëpp muy Maroc ak yeneen réew yu bari bañ demee ba gis ni kii dafay yàq économie réew mi dañ leen faa jëlee ñoom nag ñu ñëw Sénégal installé fi biñ fi installé it fekkoon nañ fi yeneen société yu wooye Citidia ak yeneen yooyu yëpp tey ni multinational yi def di absorbé société absorbé nañu société yooya ba moomaat lépp léegi nag ñu attaqué li nga xam ne mooy secteur commerce bi commerçant yu ndaw yi nekk ci commerçant yu mag yi nekk ci te commerçant yi képp ku leen xam mooy ji jóge woon ci daara yi ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi te amuñu liggéey ndax ku xam Sénégal xam ne tey réew mi tey liggéey bu lay fay weer amu fi loolu nag la ñëwoon jambat ku sëñ bi waxtaan ci ak moom mu ñaanal ñu ci loolu jóge fi ndax it fii mu toll tey képp kuy def commerce njàq ga ndax commerce bi ñu ngi ci gros ñu ngi ci demi gros ñu ngi ci détail lépp ñu ngi koy def li ñuy jaay ci marché ba muy luy jar ñaari dërëm wala ñetti dërëm wala fukki dërëm lépp ñu ngi koy jaay loolu nag bu wéyee marché yi kenn dootu fa jënde su wéyee boutique yi kenn dootu fa jënde su wéyee économie Sénégal yëpp danañ ko nangu def ko ci seen loxo te ñun ñii nag ñooy yoonu murit ndax ñun ñooy taalibe yi ñooy waa kër Serigne Touba ñoo jóge woon ci daara yi ñoo jóge ci kër yi jóge fi dem ci dëkk yi liggéey ba li ñuy liggéey lépp tey ci la ñuy yore réew mi ci la ñuy yore suñuy jur ci la ñuy def lépp loo xam ne lii lislaam sant nañ ko ba noppi it nekk société yoo xam ne ci wàllu commerce ñun dañoo yar ci diine yar ñu ci ak taalibe lépp loo xam ne lii lislaam nanguwuñ ko loolee dañu koy sori ñoom nag amuñu gëmuñu diine ñuy julit ba tax ne lépp loo xam ne lii lislaam nanguwu ko loolu lépp ñoo ngi koy jaay loolu tey mooy suñuy tànk beneen tànk bi ci des mooy ñu gis ni yenn marché yi ci Dakar bu ñu demee ba tabaski jot wala korite jot dañuy organiser ay foire ci biir marché ba def fa ay bâche bâche yooyu dañ ko wax sax ay cantine ndax ay bâche lañ yoo xam ne yii ay abri provisoire la jaay ko ay nit yu jógee ci àll ba bu njëkkee fat marché bi ba kenn du maa dugg ci marché bi ah muy njaayu marché ba yëg jël ko loolu nag lañ kañ ci gën a ràññee mooy HLM loolu yi bokk na li nga xamni ni nañ ko ci nopp serigne muntaha ndax xam nañ noppam bi lépp lu ci duggu fañ loolu mo doon sunu soxla ci gàttal. wàllu mbéy mi ak càmm waaw lim tonto moy njortam rafet na lool ci réew mi ndax serigne Touba def na ci réew mi loo xam ne lii Touba ci bopam def na ci réew mi loo xam ne lii ku yewo ci réew mi da nga jot ci xibal googu loolu moy tontoom nee na it lépp lo xamni li mën na ko def ci ñaan ci lépp loo xam lii suñuy problème yu ñu jànkoonteel la pour problème yooyu mën a faju it incha allah dana ko def. léegi paradoxe bi mooy yéen jamono yi ngeen def seen tournée ci Sénégal pour décrire installation Auchan ñoom ñuy continuer ñoom di installé wu gis nañ ne sax information yi am ñëw nañ Diourbel ba ñu ngi waaj a dugg Touba est-ce que kon jàpp ngeen ne seen kii bi dina am waaw xam nga ñun ñu ngi def ay tournée ñu ngi def suñuy liggéey te lii ñuy def tamit dugg na ci nopp gouvernement bi. te gouvernement bi yaakaar naa ne def nañ ci réunion ci semaine bii génn ak ministère du commerce am na ay décision yoo xam ne ñi ngi ciy waxtaan ak ñoom yaakaar naa ne loolu bu sottee euh, euh, lépp dana baax. beneen bi ci des tamit lii nga wax ne ñëw nañ ci région de Diourbel dëgg na mën nañoo dem Diourbel waaye Touba moom mënuñu fee ñëw ndax Touba dëkku diina la Touba dëkku commerce la Touba ñi fi nekk ñëpp. dégg nga ay taalibéy Serigne Touba la te lépp loo xam lii dëppowul ak l'islam dëppoowul ak li Serigne Touba digale loolu kenn du ko fi def moo tax am naa rafet njort bu rafet ni moom fuñ mënti dem moom Touba bii du ci bokk yi ñu def mu rek mooy ñi ñëwee ci Serigne Mountakha Mbacké noonu lañ fas yéene demee tamit ci xalif euh, général de Tijane waxtaan ak moom sakku ñaanam loolu la ñu fas yéene defee ci xalif généraux yëpp fenn fu ci nekk muy Kaolack muy Dakar fenn fu ci nekk danañ fa dem sakku ñaanu xalif général ya fa nekk ñu defal ñu ñaan Ibrahima Lo vice président UNACOIS